bu ñu doon dañ ko doon wax rek ndax fii arab lañu fi jàngee ci wàllu académie xëy na lool rek moo tax waaye li am solo ci wax mooy wax loo xam ne ñi ngi koy waxal dañ koy dégg waaye comme defe naa yéen ay jàngalekat ak boroomi xam-xam xam ngeen euh, lu bare ci suñu réew ci suñu réew yi liñ fi liggéey mooy jàngu français moo tax day mel na sax li xale yi daan def bu njëkk boo ko waxul sax dañ naan bokkuloo waaye loolu fii moom xewul fii bala may sori ma wax soxna jong ki bokk ak Cheikh Cheikh euh, ci li mu doon wax lànq fii dañu ne étudiants yi boo xasee dugg kuur bi nekkatoo wolof nekkatoo alpulaar nekkatoo séréer nekkatoo tijaan nekkatoo murit nekkatoo li am solo boo jógee fi xam-xam nga fi wut si jàng kon lool rek la ñu xam ne yow fii am nga fi place waaye nag bu fi tuddati tijaan wala murit moom boo diggatee moom nekkal rek euh, surtout Cheikh Ndiogou parce que xam nañu bu wax foofu waxeen la rek waaye aayul dañ koy wax ngir xam ne fii moom sëñ tubaab mu li mu fi doon doxe mooy nit la soxla ak xam-xam ak ak jullit kon ñu ngi lay dalal soxna si ñu ngi lay dalal soxna Fatim soxna Roqee di déglu bu baax a baax kàddu yi fi jub yépp ci am solo ak li nga xam ne moo leen tax a jóg muy li ñuy tuddee euh, violence ci wàllu jigéen walla sax ci nit euh, dafa mel ne loolu diine def naa exposition bi fi soxna si doon def léegi wax na Nations ni wax na lu bari ci ay ñi nga xam ne dañuy toppatoo ak yàlla doofu aadama doomu aadama wante lii yépp dafa fekkoon lislaam parewoon woon l'islam du diine bu bu nekk miracle dafa nekk loo xam ne yàlla moo nu ko jox tënkal ñu ko jox ñu ay sart ne nu lii moom ngeen di doxee seen àdduna bu ngeen ko defee dana dox yonte bi sax am na fu mu waxee ne kii dul jullit léeg-léeg nga dem ci dëkk boo xam ne sax même bu fekkente ne duñu di jullee ko nodd ko liqaam mais danañ def jikkoy jullit ba daanaka jikko la dox mooy bu fekkent ne nit ku du fen du war du sàcc mu ne da ngay dem ci dëkk yoo xam ne mooy dëkki tubaab bi ñaar léeg lekk nga def ne dëkk tubaab tubaab yi de ñu fen tubaab bi du nangam nangam tubaab bi nga xam ne jikko jooy jullit moo ko moom moom la ko lislaam tënkal kon dafa mel ne yàlla ci maandoom même bu fekkente ne yow doo ko julli la ko wooral boo doxalee jikko ji nga xam ne moom la ñu tëralal da lay daal di jaarale ci yoon wi nga xam ne moom li mooy yërmandeem kon loolu comportement la loolu moo tax d'islam diine la yonent bi sallallahu nag yéen ci wàll gi nga xam ne moom ngeen di yëngatu mooy jigéen ak violence diine moo ko diine moo ko moom moom réglé woon na ko bu yàgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa addis dafa am addis bu ñu wax ne bu mu wax ne nee ne jigéen ñeenti tax ñeentee tax ñu ñu di ko denc waaye damay wax ne góor it ñeent tax ñeentay jigéen war koo sëy ak moom mooy ñeent yooyu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wax mais ñeent yooyu dañuy wax na ñett yi yonent bi waxu ko mais daf koo fee fekkoon mu dugal ku ci waxam kon bi mu ci wax rek moom moo am solo ndax daf ne jigéen bu ñu koy ba ñu koy daan denc ci alalam ci juddoom ci taaram yonent bi ñëw nag ne wante nag bi ci am solo mooy bu diine kon civilisation yi daan def mooy grec yi wala wala rome yi wala arab yi ñëw daan wax ne nit kat bu dee amul alal jërul denc bu dee góor bu dee jigéen bu amul ab juddu bu baax jërul denc bu amul ab taar jërul denc loolu nag ñi fi nekkoon nga xam ne du yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwagul loolu mooy seen civilisation mais bi yonent bi ñëwee nag ne diine ñoom ñi yooyu ñu wax nag limaale na ko waaye nee na bi ci am solo mooy bu diine diine kon mooy firi jikko mooy nit ki defar jikkoom kooku nag góor gi ak jigéen gi ñoo ci ñoo ci ñoo ci ñoo ci ñoo ñoo ci tolloo kon ñu ngi leen di dalal fii ci barab bi barab bi nag ni ko doyen waxe Cheikh Abdourahmane maa ngi koy wax sax léegi ne boo dee waxati loo yow ko yaa ma ci gën a placé parce que moom sëñ Moustapha Abdourahmane loo ma ko jur man Mbàkke laa sant waaye toujours ay loo ji man dañ ma ci dugal dugal goo xam ne wax dëgg yàlla moom moo gën a placé loolu xëy na dafa bañ ndaam gi nga xam ne Cheikh Sëñ Touba moo tëdd woon barab bi Daaru Alim ñoom ñu fexe ba nangu ko def ko ndaam jombul loolu la bëgg rek ma ma validé ko wala ma bañ cee wax waaw kon ñu ngi leen di barab bi kon barabu xam-xam la yéen boroomi xam kenn barabu diine la boroomi borom nit yi diine ngeen barabu culture la ay intellectuel ngeen kon fii am ngeen fi place euh, moo tax suñ leen fii wax lu baax waxuñu ko pour pour sentiment rek waxuñu ko loolu mais da ngeen fi am place boo xam ne da ngeen ko mérite kon su ngeen ñëwee tey ñëw fi ne da ngeen dañuy def lii nga xam ne fii ngeen ko defee place bi la defe naa wax ngeen ko léegi seen statut yi nga xam ne. région de Diourbel xëy na loolu la loolu it li am ci wàll boobu lu yàgg am ci ci ci doomu aadama la ndaxte euh, euh, lislaam li mu dafa fi mu teg jigéen mooy fi mu teg nit rek lislaam mosul wax ngeen ko ci seeni wax amul góor am jigéen bu dee jàng dafa ne jullit bi góor bu jigéen nañu jàng bu dee leneen na góor gi bu dee liggéey daneen ni jigéen gi di fàgg góor gi di fàggoon na ko jigéen ji di fàggoo kon amul différence foofu différence bi mooy ni leen yàlla bind kenn ku ci ne dafa am loo mën ak lu sa morom mënul ngeen war a ànd nag pour def loolu kon nag li neen li des ci li ne ci diggante bi nag kon lan la mooy comportement ak jikko kon li nga xam ne moo war a nekk ci diggante bi nit ki ñuy wax góor gi dafay def violent dafay violer ay ñàkk fayda yooyu wala jigéen di nangam loolu ah, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne alxuraan daf ne ñu mel noonu bu dee violence la góor la jigi góor di jëpp jigéen daf ne feebar la daf ne woon yow yonent yow yàlla daf ne yonent bi yow sa jigéen euh, nañu bàyyi xel bu ñuy wax sax bu ñu di damm seen kàddu ndax dafa am ci góor ñi ñu feebar am na góor ñoo xam ne jigéen moom pour ñoom bànneex rek moom la ñu war a seq boo waxee ñoom wax bu neex sax defe nañ ne leneen nga ci jublu foofu la ñuy xool nee na yoon mais yàlla def na ñooñu bu ñu ay nit dañu wérul kon teg leen teel na leen rek problème bi nag nañ xool nit ku wérul ki ku góor ki ak nit ku wérul ku jigéen ki parce que jigéen bi tamit war na fexe ba bu mu def dara loo xam ne dana tax jigéen ji yàpp ko parce que man damay wax ne ñu nuy tudde ay ibaadu maa ngi leen di félicité parce que xaw ma sax lan mooy ibaadu man ci suñu ci suñu xaw ma ko wante fexe nañ de ba muuru boo muuroo sax ñu ne la lool la nga xam ne yenn jigéen ñi góor yi sàggan yi sax buñ gisee jigéen ju muuru duutuñu ko ñemee kon mu mel ne euh, dafa mel ne kon ñaar ñëpp am nañ ci responsabilité ki nga xam ne day góor boo wax moom yàlla moom moo moom loolu dafa ne cité ne kooku wérul moom moom jigéen koo xam ne jigéen boo gis jigéen di attan di jigéen wala ngay attan di siif jigéen kooku nit du ko def nit du def lu demee noonu ba tax na feebar la ci nit mais feebar boobu nekk ci nit tamit góor jigéen ji tamit dafa am responsabilité am na jigéen ñoo xam ne kenn du leen romb ci mbedd sa xel xalaat di leen jege sax wama laa nga di leen kon ci nit ki la waaw mais bu fekkente ne xale bu tuuti nga aussi ñu yar la ci yarin boo xam ne sa yaram di feeñ say tànk sa lépp di feeñ mais góor gi nga xam ne wérul mais xam xamee woon mag ak gone kooku li muy xamee mooy li muy xool ci jigéen rek la muy ku mag ak ku ndaw ak yaayam sax dama na cee xool lam cee xool mooy lam ci bëgg rek muy defe nañ góor jigéen bana feebar bi ki ko def mooy góor gi moom la feebar parce que mooy ki nga xam ne xóorul ci jigéen lu dul bànneex mais ki nga xam ne moo ko dimbali ci feebar bi tamit mooy ki nga xam ne moo koy fexe ba di ko di ko muy muy gis ci moom loo xam ne feebar ba dana yëngu ci moom moo tax éducation bi diine wax mooy jikko loolu tax yonent bi sallallahu alayhi di wax ne boo dee denc jigéen bu ko denc ci alalam am na góor ñoo xam ne bu ñuy wuti jabar dañ naan ah yor na dara kooku ñàkk jom la moom am góor ñoo xam ne tamit dañuy wax juddu judd ba kooku araab yi ñoo daan defee noonu wala ñu ne taar ba nga xam ne lu ci nekk day day jeex moo tax yonent bi sallallahu ne jikko ji nga xam ne nag mooy jikkoy diine nga xam ne doo fen doo def nangam doo wor doo wor doo njaaloo doo def luñ ko bi jikko jooju bu fekkente ne dignité boobu kooku mooy carrière valeur loolu bu dajee mooy tax nit ki am ay valeur yoo xam ne waxuma sax kenn waxuma tax moom mais kenn ñemewu ko daf ci mbedd wala nga daa ko di ko wax jaaxam sax am na jigéen ñoo xam ne te yaakaar naa ne yéen ñi kenn kenn du leen dab ci mbedd am di wax wax wax kon dafa mel ne même responsabilité dañ ko war a partagé ki nga xam ne moom yàlla moom nee na dafa wérul kooku moom mooy góor gi nga xam ne xalaatul ji jigéen lu dul bànneex rek kooku moom ay mbir mënuñu ci sore waaw kon nag am na ñoo xam ne tamit seeni waajur dañ ci am lu am solo ndax jigéen nit bu fekkente ne da ko ndax loolu amoon na am na ñoo xam ne dañu naan forcer seeni doom pour ñuy dem di caaxaan ñuy wuti dem ci mbedd loolu tamit nit boo ko defee noonu kooku wala ci biir kër gi mu fekk fi koo xam ne la ca biir kër ga ci ñoom ay loo xam ne dara ci jikko ju baax mais ku mel noonu kooku tamit def ci moom lu loolu bu ko defee li am solo nag mooy sunu li ngeen ci duñu léegi ci wàllu sunu civilisation wala sunu sunu dem ni koy waxee léegi si bare na loo xam ne dañu ko fee indil mais ñun suñu ay valeur sax bu njëkk sa doom boo ko amee ba di ko may may may muy sëye dañ koy tëggal maanaam bu ñu koy jébbale sax dañ koy xew lay doon parce que bu fekkente ne lu dañ ko ci yàlla def na du gone gàcce lay doon ko sax ci moom ba àddina di tukki mais léegi am na loo xam ne dañ ko dañ dañuy defee ne du civilisation boo defee yooyu sax wala nga defee ne te loolu ay valeur rek la ñu daan gàdde c'est que ni ñu ko daan defee xëy na moo bokk moo moo moo moo demee noonu te loolu it baax na ci nag parce que fësal ko ndax boo gisee yàlla ne nit ki bu ñu jaaloon nañ ko dóor ci kaw ci bi ci digg nit ñi dóor ko ay yar mais xam nañ ne loolu loolu loolu ay yar yañ koy dóor mën naa am mais nag dana course loo bu bu ëllëgee fu jaar ñu ni kii lañ doon dóor parce que dafa tooñ yu mel noonu dafa am solo ci ci ci ci moo tax lii ñuy wax ci wàllu violence bi euh, bari na ay loo xam ne xëy na dafa xat wante dafa laaj ay conférence yoo xam ne fii bu ngeen fi ñëwee Eh, ni ñu ko waxee rek xale yi nga xam ne fii ñi fi li nga xam ne moom la ñuy moom la moom la fi moom la ñu fi yare wax ngeen ko ci affaire lu bari ci ci affaire parce que eh, fii Al Azhar la Al xam ngeen ni établissement bu sëñ Mourtala Kariou 1974 fi mu ne nekk na ci ay 90 000 wala 95 000 yu demee noonu ay élèves ci Sénégal ci biiram mais ñun bi ñuy tàmbali wax nga Alexandre ñu bari suñu ay étudiants ñu ngi leen di yóbbu Égypte ak Maroc parce que dañu doon choisir pays yi nga xam ne. duñ fa demee duñ dana ñu mën fa génn ci jàmm cest à génn fa ci jàmm mooy jàng am xam-xam doo jël seen culture comme lu bari ci ni nga xam ne moo nu dal ci suñu njàng français wala yeneen dëkk yi bari nañ ñoo xam ne bu ñuy jàng dañuy jël culture ba te culture bokkut a xam-xam nit booy jàng da ngay jël xam-xam boo gisee fi xale yi ñu ne leen jàng leen nasaraan di wax nasaraan parce que làkk la comme saraxule comme pël comme na comme séeréer xamal làkk bi pour nga mën ko muy muy transmission nga mën wax say wax mais buñ dee jàng fii xam-xam lañ jàng moo tax suñu institut ay ala fii yëpp bëgguñu sax ay franco arabe ak arabe franco ay affaire yooyu ñun li ñu bëgg mooy nit ki bu dee bëgg naa làkk ay nasaraanam parce que soxla na ko war na ko mën def bu dee ay anglais wala chinois wala lu mu mën mais base bi muy jàngee diine mooy alquran nga xam ne ci arab la wàcc mais ñun tam loolu lañ base boobu lañ koy jàngee mais jàngooñu ay naar parce que ay naar la ñuy jàng ndax naar culture la ñoom ñoo daan def nit ki bu amul juddu bu baax ñu di ko damu rek moo fa nekkoon boo dee jàng seen littérature dangay ngay mujj waaru ba ci nit ñu baax ñi ci nekk sax am na ay wax yoo xam ne dañ ko dul mën a waxee mais dafay doy waar kon de am solo mooy li ñu sol ñun su xam-xam lañu moo tax bi ñu daan dem foofu du yóbbu ay Égypte du yóbbu Maroc lañu daan gën a préféré ak Égypte ak ndax yooyu xëy na jege nañu ba jombul ñu fa jàngee ba ñu amee seen kii mais am na ci yenn pays golfe yenn yoo xam ne boo fa jàngee boo dikkee kenn du dégg bari na ñoo xam ne fii lañu leen yare ñu jàng fi am seen baccalauréat yaa génn def seen enseignement supérieur mais buñ ñëwatee fii kenn mënta wax ak ñoom parce que lañ leen a sol ci loo xam ne ñoom sax gëmuñu ko yu mel noonu violence yu ci bari du diine ñëpp xam nañ ne diine mënul indi lool parce que bu dee diine moo ko indi kon ñëpp a koy def diine dafa am règle yu mu teg ne lii la nit doxal yàlla moo nu ko rëddal tegal na ko ne nii la nit war a defee kon yàlla mënul juum ci li muy def kon nit moo am ay ay dérapage yu mu def yoo xam ne ci biir la mu jàngee ak la mu bëggee diine ndax loolu moo tax xale yi nga xam ne ñun ñoom la ñu jéem a def fii bu ngeen gisee seen seen sunu slogan fii ñuy wax ne dañoo fexe ba am fexe ba tëggaat ay nit du tëggaat wante fexe ba ñu xam parce que xale yi ma gis fii xale man mënuloo jàngal benn xale benn année mu mën a wax ci la muy la mu bëggoon a jàng mu jàng ko ci làkk beneen bu njëkk boo ma saan wax dugg ci ay ay seen bureau madame nga jéggal ma boo waxul na France sax boobu yow dañ la dañ la teg nit loolu yëpp dafa jeex fii fii ak ci yéen ñi parce que tamit bu njëkk yéen bu mel ne al boo ci boo ñëwee bala ngay am jàmm wala dara boo waxul sax dañuy defe ne xamoo mu mel ni fii li fi nekk ci xale yi ngay gis ni tey loo ci bëgg ci ñoom ci wax foo ko bëgg bëggee mën nañu ko ku ci la ci doon def ci ay wax ju mën di doon ak ci diine ak ci xam dangay ngay defe ne kii feneen la jóge mais doo ko gis mukk ci ñoom ba xam ko parce que nit ki pour mu mën a garder ay valeur mu mën a garder ay boppam foog mu des ak boppam bu pare mais bu jëlee boppam jox ko nit nag pour jël waxam kooku day fóoti dafay mel ne dafay widd boppam loolu moo tax euh, su amee lu mel nii euh, ñu gis ne kon euh, li am solo mooy fexe ba Euh, lii ngeen di dox jigéen ñi ngi joddi ko ngeen am na solo lool parce que yéen ay femme ay jigéen ñu diplômé ngeen loolu itam sama ñi ngi wax 43 cent mais nag man nag euh, damaa bañ a weer danoo bañ a weer suñu bopp rek mais li fi nekk ci ay jigéen ci ñuy am ay ay not yu baax ah, ah sama xale yu góor yi ngeen sama doom ngeen mais nag wax dëgg yàlla jigéen ñi moom ndax man xam naa ci dara man samay doom yu jigéen wax dëgg yàlla kenn ku ci nekkul ci ay enseignement ay diplôme yu kawe la ñu yor te ay xale la par rapport ak góor ñi am na ay doom yu am de waaye nag wax dëgg yàlla ñor ak yu góor may gis tamit ci résultat yi tamit waaye ñi ngi wax 43 pour cent mais 43 pour cent yàggoon na yàggoon na te li may gisee jigéen ñi tout le temps seeni not ak seeni fula li ma leen doon wax rek loo xam ne waxi biir la woon ndax suñ masaan dem ci ins dama leen di wax ne leen affaire jàng leen ba mën a ba mën a ba mën a ba jàng leen pour ku leen wax ci affaire sëy dama leen doon wax nag ci waxi biir néeg la woon nag ndax dama leen ku leen góor gu leen ñaan bu leen seen bàyyi dama leen ko may neel góor ga bëgguma la jigéen moom bu ne góor jig bëgguma la rek lu góor ga ñàkk-ñàkk jom dana ko baax <laughs> waaw parce que am na loo xam ne ndax waajur yi waajur yi sax bëgg nañu seen doom am résultat waaye dañ leen ci dul bàyyi guddeeg bëccëg taxaw sa doom ji sa doom ji bala ngaa fer ñu taxaw la loolu kenn mënu ko fajal boppam ku dul xale yi ngeen fajal ko seen bopp lànk naa rek góor gi bëgguma la jeex boo ko waxee góor def naa ne lu mu bon bon bon ak lu mu ñàkk ñàkk jom dana la baax bëgguma la moom def naa genn góor xajowu waaw bu ko defee loolu day nekk solution looy nekk loo xam ne parce que xale yi fi nekk mboolem niveau yi ñu am a nga xam ne man du ma nekk fii di wax sama ay xale parce que loolu dafa xaw a doy waar waaye gis naa ci joo xam ne fa ñuy àgg te li ci gën a yéeme mooy ñoom amuñu problème mu ŋaat ŋaat ak sugg sugg ak dugg fee génn amuñu problème boobu dañuy jàng am xam-xam ba noppi ànd ak seen dal ànd ak seen loolu tamit suñ xale yi fii tamit. loolu xale yu góor yi fii tamit loolu lañu am bu njëkk arabistan ñun ay bu njëkk la ñu daan làkki arab yor sa téere di ko tëj ko wax waxtu na ne ngay liir foo toll ñu xam ne ab arabistan nga di làkk mais léegi yooyu yëpp xale yi amuñu problème boobu koo ci di koo ci toogal nag pour wax ak moom la nga bëgg a moom ca la nga ko wax dana wax loo xam ne boobu sax nga di am problème kenn du ko waxee di ko tiitaroo di ko wane te loolu nekkul nit nit ki la muy tiitaroo mooy moo tax damay wax ne ñun université bi ñu ñu am fii damay wax ne ñun du ñu publicité mais dañuy informer bare na lu ñu ñoo xam ne saa buñ dikkee fii muy baat bu ñuy teree nun ngeen baal ma ñun dañuy teree da nga noo bett parce que dama ne nit boo ko gisee rek seen xool ko ca kaw bu demee ba suufee nag nga xam ne moo suufee mais boo ko xeebee rek moo tax te fi mu ne dafa mel ne annoncé ak publicité dafay yàq lu bare ndax njàng mi du yëfi jaaxaan du lu tuuti. ay xalaat la ak dal la te mboolem ñu nga xam ne ñooy encadrement yore ay professeurs yi ngi fi fi nekk ñëpp ay borom gis ngeen sëñ bi gis ngeen nangam ak professeurs yi fi nekk kenn koo ciy gis ba defee ne xam na ngeen dañu ci mbedd waaye bis bu ngeen toogee nag fa fu xam laaj moom bu boobaa fu laaj xam moom bu boobaa mën nga am problème boo xam ne doo xam foo koy waxe te loolu mooy nit ki nit ki day day am ay valeur téye ko am xam-xamam téye ko am compétence am ko bu ko defee dana mën a jaxasoo ki xamul sax parce que ki xamul sax boo demee teel ko ne borom xam-xam laa nangam dalay ragal dootoo ko mën a jëriñ dara bu ko defee nag ñun fii ci université bi loolu moo tax mbooleem ñi fi nekk mboolem ñi nga xam ne moo fi nekk ci ñi ngi leen di sant bu baax muy jàngalekat yi professeurs yi professeurs yi li ministre bi waxit wax dëgg yàlla duñ ma duñ lu ma lu ñu am lu jëlti ko mais ñu sonal duñ sonal état bi tamit daf ñu defal nag parce que tamit jàng euh, yombul woon fii ci affaire diine dem ba am ay diplôme mën a am sa mën a am sa ay master wala doctorat mais fii te état bi mooy jàppale te lu ne def nañ ko doon ak ñoom te saa bu ñu masaan toog di réunion ak ñoom suñu xalaat même bu dëppoowut teg sax seen liñ tëral ñoom danañu lijjanti bañ toog ba waxtaan ba discuter bañ fekk si sunu kon état bi tamit ba ñu loon ñu leen di gërëm bu baax tamit ndax tamit jàng dafa nekk loo xam ne du lu ñuy lijjantee ko paramtu bu ko defee nag kon xale yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ngi leen gën a encouragé ngeen xam ne léegi nga ko wax léegi lañu téléphoné ni am na xale boobu génne woon fa la ñu ngi ko yóbbu loolu ñu bari ñu ngi ci société entreprise yi te kenn ku ci nekk fa nga nekk dañu lay naw respecté la kon nag loolu moo tax ñu mën a am génération boo xam ne ëllëg ñoo mën a taxaw li ngeen bëgg nag waaye nag jigéen ñi nekk lu amul problème jigéen nag góor ku nekk nekk waaye nag bu ngeen nekk président tamit bu leen ñu indil ay jafe-jafe waaw loolu moom waaw moom moom parce que nag jàng ñi mii ma gis ngeen koy defee de moom ah loolu ne mën na fee nekk de waaw te léegi ñu ngi koy ñaanit nag parce que tamit euh, xam-xam lañ soxla ak nit ku jub te lu bare bare bare ci kees yu bare yi ñuy dëppoo léeg-léeg yéen du ngeen ci bokk bu ko defee nag kon ñi ngi xam ne rek seen lii ngeen taxaw mbootaay gi yàlla na ci yàlla def barke pare nañu pour lépp lu ngeen soxla bu fekkee ci ay document la bu fekkee ay wax la parce que lii dafa am loo xam ne tamit euh, euh, dafa laaj bu baax Euh, ndax léeg-léeg dañuy nu jabaloo seen affaire diine affaire jigéen l'islam mais jigéen moom l'islam jigéen na ko eggal li ñu nekk ci alxuraan ci ay aay ak lépp bu ñu ko doon kooku mosul am li ma leen wax rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dikk fekk fa ay civilisation ñee ne jigéen na am alal nga soo ko mën a takk ñee góor na na am juddu ñee na am na am taar yonent bi ne loolu mënul régler problème bi problème bi diine moo koy régler te diine mooy jikko kon kooku teel naa régler problème te loolu civilisation ay tubaab la ñu kon ba fii ñu nekk lu ñu am solo mooy bu nun bu ñu déggati problème wu tubaab yi dañuy jigéen ñi dañ ne non loolu amul en tout cas amul ci diine mais fexe nañ ba lépp lu am lu ñu def lu nekk rek yan ko diine mais yéen bi yaakaar naa mën ngeen a régler loolu mooy lii nga xam ne moom ngeen de at def bu soobee yàlla violence bi ak li ñu def lépp ngeen xam ne loolu moo tax sax ñu créé université bi parce que wax naa leen ko mooy bu njëkk ku ñu yóbbu ci dëkk yenn yi pays golfe bi wala pays kii boo dikkee dootoo am jàmm kenn du xamante la ngay wax et lu bari ci terrorisme ak lu bari dugal na ci yoo xam ne xëy na sax Sénégal mucc na ci ndax ñoom xëy na <laughs> loolu mën a joxe danañ lijjante ba nga jox leen seen xaalis mais bu dara desul lu na nga bëgg leen a reyloo ay nit ci ay bomb moom duñ ko def waaye bari na ci loo xam ne ñoom ñoo ko def mais tax nangu woon suñu ay ay étudiants léegi nag loolu dindi nañ barrière boobu dindi nañ barrière linguistique bi mais dindi nañ barrière tamit technologie science maanaam xale bi fi nekk mën naa nekk médecin mën naa nekk ingénieur lépp loo xam ne loolu lu jëm ci euh, scientifique la xale yi mën nañ koo nekk ba noppi nekk ay jullit di nekk ay nit diine fii tamit loolu lañ leen wax rek ñëpp fi nekk xeet yi fi nekk mais kenn nekku fi naan kii laalaa kii la ca des la ak loolu parce que dafa réglé wul problème te itam li nga xam ne mooy sëñ Tuubaa loolu noonu la doon doxe ñoom li ñu xamoon mooy nit ku baax ak jullit def defar nit loolu la doon wax kon nag li nga xam ne mooy am solo rek mooy ngeen xam ne fii daal lépp lu ngeen soxla ci loo xam ne jàpp nañ ne ñun war nañ ci mën a def dara ndax université la am na lu bari lu fi nekk loo xam ne mais li ñuy li may wax rek léegi la li ñuy indil jafe-jafe rek mooy publicité wuñu informé la mais bu ngeen ñëwee nag defe naa ne léegi informé yi xamal ngeen seen bopp am na loo xam ne kenn jëratuñu leen ko ex waaye tollu fële nag di wax lii la ñu laa la ñu boo ko defee rek am na ñoo xam ne sax seen yoon nekk bu leen jàllee rek jaar mais informé nag boo ko defee ki nga koy def day fekk bu bëgg xam bu ko defee bu boobaa dana mën a jàll ci lu yomb loolu moo ñu ñu ñu sant leen bu baax baax te it yéen a ko njëkk a def ci as yu mel nii yeneen yéen jigéen ñi njëkk a def lii def naa ne amoo fukk yëgaguma fi am na ay convention yu ñuy def université mais lu mel ne mbootaay gi ñëw mel na ñëw mësul am kon nag mu mel na dafa mel ne yéen jigéen ñi <laughs> loolu loolu li def nag li may wax rek la bu ñu xale yi bu ngeen watul ñoom ñoom daal mu noonu waaw bu ngeen jéem a góor góoru leen jàng te bu leen jàngantu nag waaw jàngantu dara jëm waaw loolu moo indi problème bu rëy a rëy boo xasee bay jàng bul jàngantu kenn ku ne na xam te déglu la te déggit nag waa bul jaar rek jàll ndax loolu tamit mën na indi ay ay su ngeen ko defee rek da ngeen changé ak fii ci suñu réew da ngeen ko egg da ngeen ko yóbbu foo xam ne ëllëg ki si génération yii ñëw yéen ak seen seen seen seen jamono da ngeen xam ne li ngeen def nii du loo xam ne yàlla mës lañ leen ko dafa dafa seen chance la kon góor góorgóorlu leen kenn ku ci nekk lépp lu ngeen soxla ci matières yi ñu ngi carrière ay faculté façon matière filière bu nekk fas nañ ci yéene dem dëkk bu nekk fas nañ yéene seet la nga xam ne moom la fa méngoo ñu di ko fa ñu di ko amuñu doole ci leen mais dañu lijjanti rek lijjanti bi nag duñu sàcc duñu def blanchiment d'argent duñu jaay trop voilà loolu tamit dafa matal leeral duñu saatee tamit nag waaw parce que tamit lépp dañu lijjanti dañuy jël baana baana di loolu mooy mooy mbir mi yàlla la moo ko mën a lijjanti nit ki bu fekkente ne la muy def dëgg la ci moom mais yàlla moo yor lépp kon mën na la jox te doo ci sonal nit mën na la jox te doo def lu dul noonu kon yéen ngeen jàngee ci loo mel noonu xam ne kenn ku fi jóg leen yàkkamti lii ñu xewal ak yu demee na yëpp yéen bu leen jàng leen am xam jub tege ci yoon bu ko defee ay xale ngeen te am ngeen chance boo xam ne ñun ñii sax di leen mag amuñu ko kon na ngeen góorgóorlu yàlla na leen yàlla sàmm soxna si kon ñi ngi ànd ak yéen fas yéene nekk ci ci li nga xam ne lépp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ànd ak ci yéen ci liggéey bi bu soobee yàlla lépp lu ngeen ci nekk rek ñu ngi leen di féliciter ci discours yi parce que tamit lu may wax rek ñun daanaka xamatuñu sax lu ñuy wax te ku wax rek nga defi ne loola la nga bëggoon wax daf ko ba ci xale bi sa maam jaar mi sax kon yooyu yëpp ñu ngi xam ne rek mooy mbir mi moom bu ngeen bokkee fu ngeen jëm rek day yomb lool pour ngeen ànd dem kon yàlla na leen yàlla defal jàmm ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant di leen dalal asalaamaaleykum